nuyooti naa leen ñëwati naa terrain gaal gi mais yàgg maar terrain bi tey li fi doy waar mooy xool ni ko jag sa organisé xoolal gaay yi ni ñu tooge xoolal ni ñu tooge xoolal terrain bi ni ñu tooge xool gaay yi ni ñu toogee xoolal tey organisation bi tey amul jaxasoo yaa xool tëggkat yi gaay yi ndeysaan bi tiit du mën a ñàkk

jak safi teg 3 millions mbër yaa nga ca géew ba xale yaa ngay lewaatoo dina ko mbot daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko daan baa rëy xoolal lii e waaye gasu waay daan na ko Fara ñëw na de. Ngel John bu Mbour. Ngel John bu Mbour. waaw. yaa dem final maa dem final lessé léegi foo jógee. maa jógee Mbour Tefes. Mbour Tefes. Ikri ak Jordan. tey da nga koo nar a jël yóbbu ko yóbbu ko moo feeraay. mu taxaw ma ko laay compter. dëgg la maa ba. billahi wallahi. ba waaw waaw firi bàcc. firi rek bàcc. chargé de kii daal mooy kee xaw ma turam kii guy gi la kii waaw waa ndeysaan cey guy gee ngoog zambala Zambala ngi ndeysaan cey loolu xam nga yàgg ji làmb Franc Franc laa la wax demati na demi-finale démb lu doy waar la def arène nationale moo tax ba may wax alléluia sax tayuma ko man booy avertissement bu yàggee nga ñàkk cey lool xoolal Franc jëlal ewa xool Ibou Ndiaye waaw waaw ñu ngay bëre de ndeysaan guy gi ndeysaan xool Ibou Ndiaye ak Franc cey lool waaw waaw cey luum waay guddalu fan waay

ndeysaan waaye bii demi final la yàgg tamit waay ñu dem fee kaay kaay kaay Ibou Ndiaye ngi Ibou Ndiaye ngi eh xanaa xel mi daa waaw waaw. di too ci doomu séeréer a nag. waaw. samay maama ko doon foowee. waaw. kon da nga koo si ñun séeréer làmb neex ngay gi rek ku ne jóg dugg si waaw naari sax dañuy bëre ngay gi Fara loo wax Fara ngi xoolal Fara ah, sama dëkkandoo ñoo bokk dëkk quoi mais di ngeen bëre de. que le meilleur gagne rek. mais di ngeen bëre de. mais man fulla ji nga àndal mooy lan cey fara fara ngongu ndeysaan demi-finale cey lii ee eh way du mën a ñàkk yàgg maar cey làmb ndeysaan ndeysaan cey loolu Macha ngi leen di woo lay bëggee xoolal la faraay def lii day metti lii day metti yàgg maar cey yàgg maar ñaari doomi parcelle arbitre soufflé na Fara hey Ibou Ndiaye da ko bëgg accéléré Ibou Ndiaye da ko bëgg accéléré Ibou Ndiaye ak Fara Fara Fara bañ na Fara bañ na waaye yàgg maar Ibou Ndiaye baye waa Ibou Ndiaye lu dal Ibou Ndiaye da ko bëgg accéléré Ibou Ndiaye da ko bëgg jaay doole Ibou Ndiaye tey ngaa tey caxabal daan na ko daal daan ko laa ilaha illallah Ibou Ndiaye kay Ibou Ndiaye doomu séeréer la doomu séeréer la doomu joof yor maa ko ëpp doole maa ko mën. mayu ko dara ku dul moom sax maa ko waaye yàgg maar xanaa bég nga Franc na tey ko jommal Franc tey mayu ñu ko jàmm. non Babacar mayu ko jàmm. da koo mayut jàmm. wax na dëgg. jox ko benn temps de répit. mbër mu ne daa am nuy bëreeg moom. dëggantaan. Franc doo oh Ibou Ndiaye yëngal na gaal gi. Hmm. yëngal na gaal gi bu mu yëngu. mbër la. na ma doomu séréer la. waaw loolu wax la. lii samay maama ko daan def. loolu wax la. héritage la. dëggantaan. yàgg ndonoo daa wóor. waaw mooy lépp sustu boo ko sàmmee. waaw da nga doon fowee ko. dëggantaan. te deret du wor. deret du fen boo. surtout boo ko sàmmee. borooma koy wor. Ibou Ndiaye daa ni warut de. ndax lii mu def tay waaw. Fara ñaaxar la mujj a daanu. waaw Serigne ca ñaaxar. gis nga. billaay mu daan ko démb fayu. Ah. Ah, Fara tey gis na lu ko jommal. na ci kawam. Fara gis na lu ko jaaxal. cay làmb. billaay Ibou Ndiaye yëngal na terrain gaal cay làmb. Zambala. Zambala coow la bëri na de cey mbayang luum cey mbayang luum avertissement bëre leen fara ngay ñibbi fara ngay tàggoo Franc ngay tàggoo Franc sol na mbubam Franc tàggoo na tey tey finaalu dañ ko koo xañ obalee ko ko xañ cey Franc waay waay waay Franc doomu séeréer waaw xool Ibou Ndiaye mi waaw Madou eh may ko tudd waay may ko tudd waay sa maam ko daan googa ma wax nee na ma jeex na waaw xool jag sa tey li mu def gaa ngi toog gaa ngi bëgge gaa ngi dund lamb Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye affaire Ibou Ndiaye la loolu Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye bu téye bu téye boppam moo mun booy yëpp du seen morom Ibou Ndiaye da koy daan waaw yàgg maar gaa yaa ngi kii dañ koo daan da ngaa liw da ngaa liw da ngaa liw yàlla rek ah da ngaa seet. waaw damaa seet ndax damaa daanu. doo yëngatu tuut. nan laa yëngatu aw ma lu ma yëngatu fu ne nii. waaw damaa daanu waaw yàlla. xoolal gaa yi amateur yaa ngi nii yàgg maar amateur yaa ngi ndeysaan yàgg jëlal yaa xool gaa yi public ku làmba ngi loo bëgg a ay gaynde si loo nekk gaynde yaa am bu baax a baax man la booy laay ma booy ma lay bëgg de ma amal jàmm yow mais am jàmm bu baax ma yow yaa teyow yow yaa teyow yow foo may jaar foo may jaar ma dàq ba da ngay soob yow da soob da soob bi na man ah, guy gi guy gi waaw guy boo waay ne day daan de ah waaw yàlla baax na ku yàlla may ndam rek ñu xam ne noonu la waaw waaw yéen a ah arbitre baa leen di woo xoolal lii day takk maar cey lamb cey lamb Zambala ba nama naa waa raw gaan mbër da ngaa làqutu kenn la waaw non xam nga rek li amoon comprendre nga mais làqu ñu ngi woon di liggéey waaw lamba yee amul woon nag comprendre noonu la demee tey nga ñëw dem final waaw sant yàlla sant yàlla quoi te bëgg naa nga jël ñibbi bëgg naa nga jël dem ak moom waaw incha allah bu Njaay mais daal ne na moom tey da koy jël maamam ne na ko da koy jël ah yàlla rek a xam de suñu borom rek moo xam waaw man damaa ñëw pour jël si allah waaw non yàggatul léegi mu leer si yàggatul dara allah Obeuly Zambala ngongu Ngel Jonn à gauche Gouy Gui à droite Ngel Jonn moo leen Ngel Jonn nekk seen droite Gouy Gui à eh, daw na jël daw na jël da koy buddi lonk na ko tànk eh moytul moytul foofu mu la ko dugal doo daanoom daan na la daan na ko de dina ko daan de dina ko daan de xale ba bañ na waaye lii doyul waaram daan na ko daanoo gulam daanoo gulam guy ga ngeel jon nañ la ay waay nañ la ay daanu na guy gi daan na ko guy gi daan na ko xale yi xool li ñuy lii yàgg foo ko mas a gis lii doo ko gis fenn lii doo ko gis fenn lii doo ko gis fenn mais booy li ngay bëri loo bëree ak moom. waaw sant yàlla rek sant yàlla suñu borom la waaw sant yàlla rek. waaw dañuy sant yàlla suñu borom rek waaw comme 64 mbër lañu woon yàlla def ñu dem ñu ñaan ñëpp final kon ñu ñaan ñëpp ay champion lañ rek sant yàlla bu a xol bi sedd na xol bi sedd waaw sant yàlla bu baax a baax waaw comme 64 mbër woon ñu ñaan ña ay champion lañ fole ak ree waaw kon dañuy sant rek sant rek ndeysaan man xoolal li ci digg waa lii lan la yàgg maar eh, yàgg waaru woo gis nga li may gis laa ilaha illallah cey lam lii de lii de lii de doy na waar lii doy na waar de si ay yàgg yàgg lu ne yaa koy filma yàgg maar moyul sa bopp ah baax na yàgg maar lu ne yaa koy filma waaw Ibou Ndiaye mi moom Ibou Ndiaye mi jéggal gaay doomu séeréer la Sey Ndiaye Ndiaye Joof Yoor Ndiaye Parcelles Ndiaye doomu ndeyu ñaabu ndaw ñaabu ndaw sa booy borom gambi borom cey làmb mu ngay dem de yàgg maar mu ngay dem de yàgg kii ngay dem de yàgg mu ngay dem de mu ngay dem de coppe maa ngi lay lii lan la nga téye nii lan la non lii du dara dañu ko teg dara rek yor ko waaw yow foo jóg ah foo jóge yor waaw moo tudd Babacar Babou Babou Ndiaye. waaw. yow sama turandoo nga Babacar. waaw. sa xel dal. Ah? sa xel dal. yàgg na bi ma jógee Jofior la dal man dama ay ay Ndiaye lañ waaw. maar ne na Ndiaye la ñu sant Sénégal Ndiaye Gaynde Ndiaye Ibou Ndiaye en final cey yàgg maar wax naa leen lamb mooy cosaan lii bilay daa bokk ci réew waaye Jax kenn du ko nax ñaari yoon bilay tay fayu jël na ramas ba de e eh way waaw waaw ba ngongu 21 ñoo bindu ci luur yi ñu fàttali leen na léegi mar Ibou daan na fi Franc jël bu rëy rëy waaye kii di Zambala daan na fi Fils sikki jël bu nganda ngand cey yàgg maar arbitre baa ngi wax ak ñoom yàgg maar kooku day sangu waaye demal ca ñaar ñee di bëre Zambala moo wan ginnaaw obali ngeen lool cey làmb final luur ndeysaan cey lamb Mathiaye arbitré pare nga pare nga na yàgg maar ak Jax 3 millions may nuyu dut ñaan bu Jax production kabar na ko ay Ibou Ndiaye waaye ay Zambala njool Zambala école nit booy ñaa da koo bëgg a jaay doole wala Zambala nag daa mën a wee bëre la man njool mu mën a bëree kay jàpp ko ci sambala cey yàgg maar ay déggal mbayang lii soo ko déggee lamb ja jeex na ah. way wi ah. boo ko déggee ñu nga final bàyyi ci xel ma wax la ko tey ay mbayang num yàlla na gudd fan kon dafa am ay waaw way yi daa bëri ay façon yàgg ci biir lamb ji hmm. ay waay mbayang waay kontaan naa yaa dégg la ma mbayang di wax waay yàlla na gudd fan waay waxal ca kaw waay waaw waaw waxal ca kaw bilaay may naa la lu bëri ay waay may na la de ay waay ay mbay luum kii moo ñàkk kiñaan kii moo baax ee waay mais deful dara lu sargal la Babacar kii daa baax deful dara lu dul sargal la. kii moo baax. ndax da nga bokk ci la ay waay wax nga dëgg waaw da nga ci la. sama compagnon de guerre bi. dëggantaan. yàgg mu Seex Béthio. dëggantaan mu Serigne Saliou. borom cant gi. dëggantaan Béthio maam Bambi Thiam. yàgg maar. jàppante nañu de. hey. waaw déedéet. waaw amul loolu de. bu yàggee mu doonub xeex waaw. amut loolu. ndeysaan ay mbay ak luum yal la yàlla fay waay Ibu Njaay Zambala ma li na fara o balee ko daan waaye ana Demba Siis sama entraîneur bu mag boobu ci Fass ak Medina cey waa ànd jàppoo sim kenn faw may nuyoo 100 pour 100 Babacar geste bu noble bi ngeen def am na solo grand laay Pape Ndiaye Cédric Marcelin Ndour waaye jak si jaajëf waay heure bi dem Fallou Ndiaye la woon ku ayewal sa moom itam moo aye woon tey jak sa aye Fallou ak Ndiaye production waaye jak sa production promoteur yi jaageen jëf ana Gaston production ak la kaat e eh, gas borom mari sëg Louga waaye lig Nicolay cey lig yaa ngi dégla la lig di waajal. lu doy waar. le 6. en eh, songo xeex Ibou Ndiaye lu mu bëgg yokk jàpp jàpp na geenu ngemb de lu mu bëgg a def Zambala xañ na ko loolu kii doole rek du ko daan de foo mu ànd xam-xam. daa mën a bëre cey Mbayang Ndour waaw waaw ee eh, waay ndeysaan déggal ma moo ngom na borom bi laa ilaaha illa la wax moom Mbayang ca way wa yàlla sàkk ñëpp yàgg ma billaay mooy borom kun fa yàkkoon te ku mën a duma morom moom yàlla nga war koo gëm moom moom ñëpp lu ko neex lay def waaw da cee bokk bii combat du yomb cay lii cay lii téere yaa ngay dagg di lang arbitre arbitre ndeysaan mi-temps du yomb match soufflé na Obali Zambala am final ñu fu nuy mujjee Obali bu Diofior Zambala bu Mbaaw Leboog Séeréer mu mel ni ñoom ñaar benn lañu ndeysaan zambala bu mbaaw force tranquille laa ko tudde tey te dal mën a bëre moom zambala moo tax obuli fa mu tey kii billaay moo mën a bëre macha gis nga gis nga daw na jël ko gis nga daw na jël ko ee eh, daan na ko laa ilaha illallah ee eh, li ma lay sant yàlla rek waaw sant yàlla di jàppale xam nga di sant di sant di sant ñi ñu doon jàppale toogoon nañ lu yàgg bëréew ñu comprendre nga di sant ñi ñu doon jàppale dañuy teg loxo xam ba ba li am tay ji tey sa première sortie nga daan ko nga jël final. waaw Babacar xam nga li fi jaaroon nii feebar la balaa bu suñu borom wàcc la rek mais ay mbër lañ lam moo suñu métier ñu ngi toogoon di liggéey bàyyeekuñu benn yoon billaay wallaay waaw incha allah. kii taxaw ak yow xam nga ko kii xam nga ko. da mooy sama lépp lamb lamb ji dañ koy tëj yaa ko yor waaw sama xamoo ko maa ko yar maa ko dugal ci mbabat maa tax muy bëre mbabat maa tax muy bëre mbabat maa ko indi tey mbal amul tiit mbalka kii sama frère la waa kii sama frère la ñun ñoo bokk benn mais kii nag foofu laa yaroo quoi mbaaw kii sama grand la séeréer la muy grand bu am jom tey bu ñu demee bay góorgóorlu di def yëfu góor si biir géew grâce a moom ok Ibou waaw ñoo far suñu grand sport la rek que le meilleur gagne jaajëf Doudou Niane maa ngi la si fay naa la bu baax Babacar fay naa la bu baax a baax ku ne xam ne yaa ko yor sa loxo dimanche passé am lu fi amoon mu mel ni loolu fi amoon tey bi ngeen ñëwaatee daa am lu ngeen ci jàngat ba ba andi beneen méthode de travail tey non xam nga boo gisee dimanche passé affaire bi mel noonu et nit ñi dañu upp dañu dem ba upp lamb ji doole te préparation bi nekkoon préparation bu gàtt boo xoolee man li may def ci lamb yëpp defuma ko sax bi passé tey boo xoolee cinq heures du matin laa fi ñëw pour rek lamb ji am jàmm e ñëpp seytaan ko ci jàmm mun a ñibbi ci jàmm ci kattanu yàlla loolu nag yàlla jàppale na ma ci ak amateur yoo xamante ne vraiment keroog xam naa def nañ ko mais rëccu nañ ko ndax amateur lutte simple et eh, dafa respecté bër dafa respecté làmb day ñëw sañse lu rafet toog seytaan lamb ji lamb ji bu jeexee mu dem ñibbi mais vraiment tey kontaan naa trop Babacar gars yi nu ñu ñëwee kontaan naa trop lamb ji bari na nit amateurs yi ñëw nañ eh, seytaan ko ci discipline ñibbi ci discipline. organisation bi jaar organisation bi dafa jaar yoon boo xoolee boo xoolee système bi ma def tey mosul am terrain gaal gi mosul am terrain gaal gi moo tax lale passé leçon la rek di kontaan nag ci yéen Equivox TV non kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax rawatina yow Babacar yow da ngay dulal da ngay dulal xolu xolu amateur waaw kontaan naa trop. waay non ay waay lañ. sama doomu ndey. ay doomu ndey lañ. ba maa la sopp <laughs> kon yàgg maar fii laa koy tëjee tëjee tey ak duut naan bu jag sa production mu mel ni ki tey nit ki rek fot ci ndab aayul mais fot ci ñaari yoon moo ay li amoon dimanche passé rectifié nañ ko tey ci ay barrière ci tribune organisation ba mu jaar yoon Zambala final daan na ëbbali muy final bu neex Zambala nag dama lay wax ne la yàgg maar nanu ko bàyyi xel force tranquille laa ko tudde mbërëm lébu la mu mën a bëre te itam nag du foye bés waaye Ibou Ndiaye itam xorom la ci biir làmb Franc nag tey demi final lañ ko daane kon gars yi dig daje beneen yoon ak Equivox TV image yu leer reportage bu neex. ñoo ko yor. incha allah rabi. Equivox TV moo ko yor. yor ah. kon loolu la Doudou Niane wax. kii sunu partenaire la. du mën a ñàkk. gars yi beneen yoon incha allah rabi.